sénégalais. il n'y a pas de raison qu'à l'issue de cette journée, que la tradition ne soit pas perpétuée, à savoir que le vainqueur soit félicité par les vaincus et qu'au lendemain, les Sénégalais vaquent tranquillement à leurs occupations pour un retour définitif à la sérénité qui a été gravement perturbée ces derniers mois, ces dernières années. waaw damay sant yàlla rek euh, ci ni ma mayaatee ma ñëw ba sama euh, fi ma juddoo sama dëkk di Njaay Njaay biir Njagañaw ci département de Mbour fekkaat fi samay waajur ni ngeen leen gisee seen at yi xaw nañ sori waaye yàlla sàmm na leen ak métit bi ñu muñ ko euh, delluwaat ci moom ba ma mën leen fekkaat mën def sama sama devoiru citoyen maanaam woote gis ngeen tamit waa dëkk bi niñ ma tertoo waaye li ma mën a comprendre la parce que fii laa juddoo yaa 44 ans ci gannaaw ni ngeen ko xamee minuit bu duggee sama anniversaire dugg na je suis né le 25 mars 44 euh, ans yoo xam ne mosuma toog def deux mois yu ma toog yu ma ñëwul ci dëkk bi bu baree ba bare kon bu ñu toogee daanaka toog fukki weer ak ñaar yoo xamante ni gisuñu ma ma ñëw tamit ak statut de présidentiable candidat à l'élection présidentielle ni rek la mënon démé parce que fi samay imam samay xarit samay wajur samay dekkondo di village bi ñep ay mbokk lañ donc euh, sen dom lañ terto teertu gi té ni rek la mënon démé euh tay nak ñu ngi woté waye woté gu luñu may moy taxaway bu sénégalais yi amoon y a quelques semaines pour xex pour que élection bi nga xamanté dañ ko bëggoon toxal ñu jëmal ko la ta mandat président bi fi bi fi nekkoon di jeex muy le 2 avril xex bobu dañ ci rendre hommage delloo ndukal bu baax a baax le peuple sénégalais parce que li ñu am ni tay c'est résultat xexam la kon bu ko xamantene moy le héros de la journée c'est le peuple sénégalais bo xamantene dafa tenir à ce que ñu respecter sa souveraineté ce moment de solennité bu muy tànnee kan mo koy jité def ko ci koluté war ko def ci dal ci jàmm parce que ñi fi nek di tan ay sénégalais lañ ci ñi ñuy tan ay sénégalais lañ jarul xulu jarul xex jarul xiro jarul Ngayo. li suñu ñaan ñukoy ñaan sénégalais yi diko diko Nyan ñaan yalla d'abord diko ñaan sénégalais yi diko ñaan tamit candidat yi nga xamanteni xeyna ni ma def ni ñu ngi dara def nonu ñu ak jamm parce que bu fi sénégalais xoso rek ab sénégalais ko xoos te benen sénégalais lu xoos te loolu lu ñu moytu lu Sénégal at yi ak weer yi surtout fitna bari won na fi tension bari won na fi bi bari na fi te président de la république bi ma bëgg a doon mooy bu ñëwaat doon président puso ñu ko mënee woowee noonu di ñu rabaat diggante yi tappewaat xool yi boolewaat Sénégalais yi pour ñu mën a jubloo ci liggéey bi. am naa yaakaar nag ci li ma jot a gis ci campagne électorale bi fépp fi ma jaar ñu ne ñu teertoo ma ba 6 heures du matin ak meeting yoo xam ne 6 heures du matin la xewee mbooloo bi bare lool. ci tàngooru Linguère 45 degré nit ñi di daw ci suñu gannaaw oto pour topp ci guddi. nit ñi har, xaar ba xaju gudi pour ak ñun pour déglu ñu pour fessel ni ñu and ak ci seen suñu projet lool day dalal sama xel ne élection bi premier tour dina jeex ma am yaakaar nak ñi nga xamantene yalla dina leen nato ndam ñu am humilité bo xamantene day xamne ndam li sas la waye du mérite personnel sas la yaakaar la bu ñu teg seen loxo waye du mérite personnel yaakaar gu warul trahir jamais bu ñu warul wor la waye du mérite personnel ndax fa ñuy jaar pour egsi ci fii fu metti la ay bakkana ci roj ay nité ci dem kasu ay nité ci fasiyene jaar nar ci jaar lagu ba abadan loolu mo nara nek en tout cas man président bi euh, sama sama sama busol suma ko mënee waxee lu manam fi ma sama bët te di fa diko di ko pour mu doon lo xamantene dotul amati ci Sénégal abadan diamond. parce que lu ko sooke fas nañ ko songu donc euh, di wote jam, du wote wat jam, di jam, tu jam. te di am yaakaar ne euh, bu ngoon jotee ni ko ni Sénégal defee en 2000 qui ki fi nekkoon félicité ki gagné ni ko Sénégal en 2012 qui ki fi nekkoon félicité ki gagné Non, la war a demee parce que une génération warul def moins que ses devanciers dañoo war a tamit dégluwante topp scrutin bi. And ci toute la bonne foi qu'il faut et l'acceptation du résultat bu ko defee jàmm ju ñu bëgg dina am de Sénégal luñ ko xamé way bi dina gëna rafet ñu mëna jublu ci liggéey bi bu ndax urgence yi bari nañ situation dëkk bi metti na té c'est des défis yo xamante amuñu temps bu ñuy xaar pour bañ leen songu à bras le corps pour mën ko dindi ndax sénégalais yi sonn nañ waaye inshallah rabbi tay la seen rongoñ di fer bu soobee yalla